Babacar Marcel Faye. maa ngi dëkk Peykouk Séréer. j'étais venu en ville. yi ah bon cause yi bari na xëy na mënuñu wax ne chômage bi mënul nekk la seule cause parce que liggéey yi bari na itam xanaa taamu bi moo fi nekk. ndax liggéey bari na ñuy génn dem bitim réew certainement la ñuy def bitim réew buñ ko doon nangoo def fii danañu faj seen aaju danañu tural seen bopp beneen bi mooy ni. ñu gën a renforcer moyen police bi à ce que ñoom ñu mun di def rafle ci yenn heures yi et nit ñi aussi dans les quartiers ñuy collaborer ak ñoom parce que lu mel ni drogue bi ñuy wax nii mën nga dëkkaaleeg nit ci koñ bi mu koy jaay mun na nekk sax sa mbokk mais muy faj aaju kër gi kenn du wax waaw waaw ci la bokk solution yi bari na mais loolu ci la bokk renforcer moyen police bi. loolu yëpp euh, bon xam nga police yi aussi bu ñu amee police yoo xam ni danañ de jour comme de nuit am na police yoo xam ni euh, dañuy euh, dañuy circuler le jour nii am na sax gaa mais peut-être que damay jàpp ni seen moyens yi doyul wala effectif yi doyul pour ñu mën a def correctement ou convenablement liggéey bi ñuy xaar ci ñoom. mais bu ñu renforcer seen moyen daal nit ñi aussi ci quartier yi collaborer ak ñoom di dénoncer. dina wàññee lu bari en tout cas waaw bàyyi nëpp nëppal dina am lu mu apporté. mbir mi dafa weesu dayoo waaw il faut nit ñi toog waxtaan ci seet ban solution lañ ci mën a jël li nga xam ne dina tax ñëpp mucc mais li gën a am solo mooy yar bi waaw yar bi c'est un problème d'éducation polem problème yar la yar la parce que jàpp nit dam ko ay paaka mu dee kooku kenn yaru yow problème problème problème yar bi la encore boo ci boolee aussi problème chômage bi yooyu yooyu yooyu ay facteurs yoo xam ne da ciy dugg da ci dugg parce que doomu aadama doomu aadama la doomu aadama la mais yar bi moo ëpp solo. ñàkk yar bi rek ñàkk yar bi ñàkk yar bi parce que xale boo xam ne dañ ko bàyyi boppam mooy tombé dans la drogue ki am kilifa ki yar am kilifa di di seet fu muy génne magum jëm dañ koy contrôler sax dama xale bu ndaw kooku mun a nekk dans la drogue. alors ah, donc ñàkk yar non les forces de l'ordre moom li ma leen mën a wax mooy c'est simple la c'est des gens vraiment extrêmement braves c'est des gens à féliciter parce que il font de leur mieux ils font de leur mieux ils font de leur mieux euh, le problème mooy la tendance aujourd'hui est à les et loolu moo du yoon parce que dans une république république boo mënta gis les forces de l'ordre constituent la garanti sécurité ñooy garantie la république mais bu nekkee fii di leen yéen nekk ñu leen ko yàq yàq ngeen yàq mais musiba yi day ñëw si kaw population bi waaw waaw on déstabilise et les gens cherchent chaque fois à les déstabiliser et, et, et dans une république on doit pas les déstabiliser c'est les garants de la sécurité et c'est les garants de l'ordre républicain mais malheureusement malheureusement c'est ma affaire moom métti na fépp quoi mhm. vraiment ba tax na vraiment gouvernement war nañ see jël ay mesures daal vraiment ndax li moom ah ah jéem a xool nunu jéem gën a yokkaat sécurité bi daal sécurité des des personnes et des biens vraiment. drogue lañ doon ah, waaw waaw loolu loolu am na si dama yaakaar loolu la quoi peut-être ndax nit ki du ànd ak sagoom un homme sain vraiment warul du toog def loolu agression ko il faut que soit mu am lu mu. jëfandikoo peut-être loolu quoi drogue beeg yooyu jéem a xool nu jéem a combattre la la drogue et le kii daal yooyu daal dafa naan. ah population bi xanaa ma leen ñaan daal ku nekk. jéem a euh, kii sa sécurité bopp am moom peut-être état du ko mën lépp état mu pas tout faire ba mhm. jéem a def seen sécurité bopp daal jéem a xool ñu mën a état fekk si leen si quoi mhm. donc mais c'est pas facile yàlla daal yàlla daal mooy sutur moo lay dimbale rek yàlla lay dimbale rek mais c'est pas facile quoi <laughs>